as asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 29 juillet 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi nag tey dafa ñëw ci fukki at yi nga xam ne nii daal Gris Bordeaux yëglikaay bi jàpp ne ni juróomi combat la ci jongante am ca benn victoire moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne fi mu nekk nii day moment bi jot na nag ngir Gris Bordeaux seet naka lay def pour diiraat maanaam daal naaw jogaat ca kaw yëglikaay bi di sunu lamb tey moo xëy sampal ñu boobu laaj mel ni ki nag combat ba mu jëm yëglikaay ba ne na est-ce que kii di Eumeu Sène naru ko may loxo maanaam daal jàppale ko ci bés ba ngir mu war a jàmmaarlu ak ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 xam ne moo di Gris Bordeaux ak ka nga xam ne jàpp na ne war na koo mën a may loxo am na ñoo xam ne ni moom may leen loxo fi mu nekk nii daa mel ni soxla nañ ko wala boog waras na leen a boole ci mbir yi parce que daa mel ni boole wuñ leen ci fi mu nekk nii combinaison wu làmb ji jàppal ka nga xam ne nii moom moo di Malick Niang ak ki nga xam ne nii moo di Elton Yékini Senior ñoom daa mel ni gars yi li ñuy boole maanaam di wax ñu war a bëre dafa mel ni boog dañ leen caa fàtte loolu yëglikaay bi xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na tey seq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatoo yaatu muy sëriñ Modou Niang sëriñ Modou ñan nag ñëw na ci li nga xam ne nii moo di ay jaar-jaari làmbam lu baree bare waxtaan woo xam ne seq na ko ki nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé ñëw na ci combat boo xam ne da ko organisé woon ba pare per ca per bu méttee métti lu toll ci juróomi million muy ki nga xam ne moo di Boy Mody Baboy ñëw na tamit ci kër yoo xam ne jaay na ko ci lamb moom mi nga xam ne ni moom moo di sëñ Modou Niang kër goo xam ne daal jaay na ko ak magasin ngir fas yéene wala boog organiser li nga xam ne moo di làmb wala ab combat sëñ Modou Niang daal tey wax na lu yaatoo yaato yaatu mbër yi nga xam ne organiser na leen Gris doo nee na moom mooy mbër mi ko njëkk a organiser organiser ko bële door sëñ Modou Niang moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu moo organiser combat Modou Lo combat déclassement am fa nga xam ne mooy ca stade Assane Diouf Lac de Guiers numéro 2 tamit nee na moo ko rafet la fa nga xam ne moo di ca géejawaay maanaam daal moom moo ko wone Zos ak Issa bu ci nekk ñëw na ci moom mi nga xam ne moo di sëriñ mujje ki nga xam ne moo di bàyyi ma njoon ba ci Yékini itam jàpp na ne organisé na ko lu toll ci ñaari yoon sëñ Modou Niang moom mooy wax wax ju mel noonu ci bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ñaar ñoo xam ne organisé wu leen moom wax na ca muy ki nga xam ne moo di Tyson ak Balla numéro 2 jàpp na ne ñii moom jotu leen sax a ci làmb suñ Modou Niang daal tey waxtaan wu yaatoo yaatu seeq na ko ki nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey yëglikaay boobu am na mbër moo xam ne moo nga fa moom ay mbiram fi mu nekk ni moom tar na ba yegg ci lool muy ambulance bu Thiès maanaam fi mu nekk nii daal daa mel ni urgence la nekk ci làmb ji ndax nag ndam dafa mel ni lu ko tëtt ci la moom ambulance bu Thiès yëglikaay bi ni suñu làmb xëy tey ñëw andil ñu ku mel ni ki noonu wala xale boobu nga xam ne moo nekk fa nga xam ne nii moom moo di ca Thiès ba tey bu nu continuer ci yëglikaay yi dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ca record record moom la mu nu xëy andil wala kam mu ñu xëy andil moo di Modou loo mi nga xam ne nii daal boo bëggee dégg dëgg bu roi amee ca Fass daa mel ni Modou Lo mooy roi waa écrit Fass yëglikaay bi ne na jàppal kii di Balla Diouf la fa Modou Lo njëkk a daam le 25 mai 2008 ñu ne déet ne waay mu teg ca ka nga xam ne nii moom moo di Balla Diouf la 8 février 2009 ñu ne déet ne waay mu teg ca Gris Bordeaux 15 juillet 2012 tegaat ki nga xam ne nii moom moo di Gris Bordeaux ba tey le 31 juillet 2016 mu daan ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux moom Modou loo daal loolu def na ko fa nga xam ne nii moom moo di écurie Fass jàppal kenn koo xam ne nii moom ci làmb ji ay ndamam bëriwul 4 victoire la ca jot a am moom mi nga xam ne moom moo di Aliou Mané ak 11 défaites record a xëy ñëw tey ëllil ñu mel lu mel ni ki noonu am na koo xam ne nii moom mu nga xëy tey di tontu muy ki nga xam ne nii moom moo di Azou Azou nag mooy chargé de communication Lac de Guiers numéro 2 comme Double fan yi daa génnoon di naqarlu dëkk ba nga xam ne ko ki nga xam ne moo di Ama Baldé asu nekkoon bi Ama Baldé di dëkk ki nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 mu ne ko foo nekkoon ba waxoo ca woon moom asu daal la mu xam ne ne na amut kenn koo xam ne dana ñu nangu ngay wàññi seen ay adversaire nee na avance u Ama Baldé buñ leen koy tegal ci taabal ji moom asu na moo koy jël ñu daal di bëre ndax nag nee na li fi am ba des daal seen adversaire moom duñu nangu kenn di ko wàññi li nga xam ne ni daal moo di bëre moom la ñu bëgg def te bu ñu gisee adversaire dañuy bëre booy ñang ba tey bu ñu continuer ci Leewtoo point net Pape Thialis Faye moom mu ngi fay wax daal ne na mës ta dépassé ci kase mbër lu toll ci 60 millions loo ci mën di dégg daal wax na ay leeral yu baree bari ci li ko indi ci làmb ji ak la ñuy wax ne dafa bokk ak Marème Faye Sall ak yu mel ni ki noonu mel ni ki vidéo yooyu wala waxtaan yooyu moom ku yebu xaar ko ci Leewtoo TV diggante Sa Thiès ak Garga Mbossé wax na ca ak yoo xam ne ni daal Pape wax na ca ak la mu ca nga xam ne nii fa la ca bëgg a dem ak tamit lu jëm ci li nga xam ne nii moom moo di làmb ji mu mel ni ki nag kon daal loolu mooy li nga xam ne nii moo fi ñëwoon tey ci yëglekaay yi. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen nag si jàngatu arène Babacar maa lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar ah di la ñaanal jàmm di ko saako ci yow Ah. amiin euh, Babacar euh, nu wax nag euh, nu commencé nag ak sunu laam sunu laam nag dafa ñëw nag si 10 ans de carrière ki nga xam ni mooy Gris Bordeaux nee ñi nag si fukki at si fukki at yi nga xam ni def na ko si làmb wala fukki at yi mujj boog voilà fukki at ñu mujj am na si daal juróomi combat te benn com benn victoire kese la si am nee nag moom ak Balla Gaye heure la heure bi jot na nag pour nag ki nga xam ni muy Gris Bordeaux mën a yëg sax si kaw maanaam rebondir waaw 5 ans yu mujj 10 ans yu mujj yi si carrière maanaam 5 combat benn victoire waaw loolu nag lu doy wa doy waar la parce que boo xoolee lim ci am ci combat néew na lim ci am ci li nga xam ne nii moom mooy victoire tamit waaw dafa mel ni daal affaire yi kon melu na mu war a mel kon li mu li li war a am mooy bi yoon a ah nu muy seete mën na boog nu muy jógaate nu muy rebondir loolu nag li ci kanam la rawul ay bët combat la am bu sérieux diggante ak Balla Gaye numéro 2 moom Gris Bordeaux kon ñu yónni yàgg rek. Mhm. Euh, Babacar nag tey nag sunu laam ñëw na tamit si nga xam ne rek grands oubliés maanaam promoteur daal wax na seen wax euh, ay at ngeen nii muy euh, Malick Niang Elton Yékini Junior ak Modou Anta mais nag dama jàpp ne am Yékini Junior ak Modou Anta sax ndax noo ndax ñoom ñi ngi toog si ñaari saison bëriwul ndax seen dernier combat Pape Thialis Faye moo ko tëgg seen cas bu gën a daal mooy yaakaar naa Malick Niang ak ki nga xam ne muy Elton waaw Malick Niang moom xaw na gëj a bëri lool ca Ama Baldé Elton sax xëy na yàggul noonu parce que boo xoolee rëg-rëg moo ko mujj daan si mm. suuru combat Gris Bordeaux ak ki nga moom moo doon euh, euh, Gris Bordeaux ak Balla Gaye mm-hmm. mais ñàkk nañ yoo xam ne nii jàpp li li li li jar a jàpp daal mooy ci

c'est normal parce que nit ki moom waaw wan ma sa xarit ma woon la ki nga doon la defe naa ne giri bu jëmee ci bés te Balla bëree Eumeu daan Balla deux fois giri jëm ci ñoom ñaar ñu di ay xarit moom defe naa ne su ko baal su ko Eumeu jàppalee rek loolu defe naa ne xel nangu na ko daal mhm. waaw journal bi nag ñëw nag waxtaan sekk ak waxtaan bu yaatu ki na nag si carrière ñëw na nag si mbër yi nga xam ne ñoom la tëgg ak mbër yi nga xam ne tëggu ñëw na tamit si li nga xam ne jot na ko euh, perte si

perte euh, combat juróom euh, million ci benn combat kon jàppal ne kon loolu lay wane ne daal mbir mi fi ngay utee foofu ngay ñàkkee foofu ngay nangam sangami mais sëñ Modou daal vraiment exemple la ci promoteur yi parce que li tax mu wax loolu mooy da koy faral di wax moom sëñ Modou ñaa nee na bopp bu tuuti te seet moo ko gënal bu rëy tey métti man waaw man a nag <laughs> loolu moo gën a wóor xam nga gàddu loo attanul itam ngir coow kese su keroogee après la la cay fekk du am njariñ moo tax bul bëgg succès wala nga bëgg ndam bay dugg ci yoo xam ne daf lay leer ne lii yow yaa ngi koy def waaye boo tëddee sa ngegenaay doo ko mën a exécuter yooyu day jaajara moytu waaw waaw Babacar nag nu ñëw nekk si ambulance ambulance nee ñu daal euh, saison yi daal ay kaam dafa critique ndax ay defet daal lay tegle nee ñu nag mu ngi si urgence ambulance nag bu nekk urgence moom kon malade yi foofu lu ñu <laughs> bu Thiès ah la boo xam ne moom itam espoir u làmb la espoir u ci région de Thiès defe naa ne ku ne gis na ay bëreem ak ni mu mën a bëree macha allah mais defet yu mu teglante ak xaw a gëj a waaye yaakaar naa nag bu defaruwaatee ñëw xalaat naa ne mën na ciy gën parce que xale la boo xam ne nii ku jara bàyyi xel la moom ambulance moom xam dem fi nga xam ne mooy record record nag dafa dalal ki nga xam ne mooy wala boog dalalaat ki nga xam ne mooy Azou ndax Azou daal mooy chargé communication ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers ngi tontuwaat tamit ki nga xam ne mooy euh, Double Less euh, di Papa Sa ak euh, ki nga xam ne muy Balla Gaye nee na nag su Double Less fan la nekkoon bi nga xam ni Ama Baldé dëkk na ñaar yoon ki nga xam ne mooy Lac de Guiers 2 Babacar waaw loolu daal Azou loolu la xëy tey wax parce xëy na comme li lees waxoon keroog ne moom rafetluwul dëkk boobu bu waa kër Lac de dëkk Ama parce que jàpp na ne làmb xajul seen diggante asu daa mel ni moom la mu waxoon da ko gën a dëggal yaa ngi dégg ah kani ñoom fi mu nekk nii daal fan la lees ne woon lees nag moom kilifa la te defe naa ñoom ñun ñëpp seen kilifa la li am solo nag moom asu daa jàpp ne lees dafa waroon a wax booba waaye comme ne na jàpp na ne waxul ba heure bi muy doog a wax daa jàpp ne ñoom seen adversaire kenn du ko wàññi mu mel ni ki daal foofu tamit daa mel ni loo ci mën a dégg wax ji bëri na demale dikkale bi fekkale bi bëri na parce que amoon na fi ay temps Ama Baldé ne pare ngir bëre ak ki nga xam ne ni moom moo di Lac de tey ñu toogaat ba benn moment wax jooja fay ñu xëyee xëyate gis waa kër Lac de Guiers ne pare nañ pour Ama lees ne loolu mënta ne asu ne na ñoom loolu mën naa ne bu ñu leen jox avance bi ñu lekk ko ah ñun man nag li ma leen mën a xamal daal mooy ñoom ci li ñuy wax wan ko ñu ay mbokk lañu yaa ngi dégg te am na mbokk goo xam ne bu fekkente ne lañ cay wax dëgg la làmb xaju fa yaa ngi dégg waaye asu nag moom gisul loolu moom jàpp na ne seen adversaire su ko wañ bu xaas bi ñëwee dañ koy bëre loolu nag mu mel ni kon fi mu nekk nii moom ah la ca des xam nga fu mu deseem ci promoteur ya ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñaari mbër yi. waaw même sax xam nga yaa wax ni nañu toog benn bés see gis Ama Baldé génn di dëkk ki nga xam ne mel na dëgër mhm. boobu tamit ki nga xam ne mooy Double Less dafa génn ñaawlu loolu nee na tant que mi ngi dund euh, combat boobu di mos a am ba si Jules Baldé sax euh, sax est-ce que Jules Baldé ak ñoom euh, amul loo xam ne xajam-xajam nekku seen diggante ndax Ama dafa génn wax Jules Baldé génn ne moom moom tamit tant mi ngi dund loo xam ne papaam bi muy dund mosu ko woon nangu kon duñ dem ba sa ba nga xam ne ki nga xam ne mooy seen papa génn àdduna du bëgg nangu loolu nga xam ne mooy euh, Double Less musta nangu loolu ki kon daal li fa am mooy kon làmb xaju bàyyi mu sedd gën mhm. yaa ngi dégg ndax nag am na loo xam ne nii comme Jules Balde bëggu ko Double Less bëggu ko mhm. te xëy na papa yi ama muy fàlla yàlla na ko yàlla yërëm bëggu ko ah defe naa kon jaru ko nañu wuri leneen rek mhm. defe naa ne ñeneen ñi adversaire a ngi fi leneen a ngi fi mais du jar werante parce que li may wax rek mbokk moom dafa dafa dafa waaw mbokk dafa foor daal te xaas xaalis mënu ko waaw te xaalis bi jaru ko pour jaru ko waaw ni ñëw nag euh, si xale ma Abou Ndour ba tey moom daal nee daal ki nga xam ne mooy Modou loo en plus bu mu nekkee roi des arènes nekk na tamit roi bi Fass nee euh, am na fa ñaari victoire ak euh, am na fa daal ñaari victoire si Gris Bordeaux victoire kay euh, benn victoire si Papa Sow Lo kon daal roi ak roi roi mu ko Fass roi la na leen quatre victoire waaw am parce que loolu noonu dafa mel ni kon bête noire la ci li nga xam ne nii moom mooy yëkkati Fass moom Modou Lo niveau loolu nag li ko ko may xëy na mooy am ambition bi bëri ak ñoom war leen a daan daan leen loolu mooy làmb parce que ku bëriwul doo daanu mm. yaa ngi dégg mais loo ci mën a dégg daal loolu ci Modou Lo ak waa Fass waaw nu euh, ne gën nañ ko gis te nga xam ne fan yi mi ngi euh, depuis ay we ñeenti victoire rek la mës a am si carrière am doy na waar loolu lu doy waar la alumaana muy mbër mu nga xam ne vraiment débém ci làmb ku ne gisoon na ni mu meloon xam mu nekk mbër bu mag a mag nekkoon ci ginnaaw Mohamed Ndao Tyson ah sport nag moo tëddee noonu dafa am nu muy doxee xam nga Aliou yaakaar naa ne grand champion la mais nag xam nga palmarès bi na waar ne ah, euh, na mën a bokk ci mbir yu tee làmb mhm. su demee nag si acte mooy Tapha ak Boy ñoom daal nee nañu jot nañu seen ay chèque waaw bu dee jot nañ seen ay sec de loolu alhamdulilah lañ war a parce que yaakaar naa ne ñoom ñaari mbër yooyu ku ci ne ah ku ne xam ne ne Pape Thialis Faye moo signé ak ñoom war leen a bëri kon defe naa ak veyu tabaski bi moom boo encaissé moom euh, dara du ko gën de ndey ko su demee nag si Leewtoo TV foofu tamit dal nañ fa ki nga xam ne muy Pape Thialis Faye am na fa waxtaan bu yaatu boo xam ne sekk na ko ak équipe bu Leewtoo TV ak Leewtoo point net foofu nag mu ngi fay wax nag euh, la moo tax mu nekk promoteur digganteem ak Marième Faye Sall bu ñuy laam-laamee wax na tamit si cachet ñaari mbër ki nga xam ne muy mooy Boy Niang ak ki nga xam ne moom mooy Tata Fatou daal waxtaan bu yaatu ba waaw waxtaan daal yaatu na loo ci mën a dégg daal ku yebu xaar ko foofu rek ak ay vidéo yu mel noonu am na lu bëri lu mu fa leeral ci cachet yi ñoom Tafaatin Boy Niang ak tamit li mu ne Masta Faye mbër 60 millions lu romb 60 millions yooyu yëpp wax na ko fa muy ay leeral yoo xam ne ni yu bëree baree bari la kon daal ku yebu daal dem ci Leewtoo point rek xaar fa waxtaan Leewtoo TV waaw. ak Leewtoo point waaw nga xaar fa loolu uh-huh. mhm. uh, na si kàddu yoon lañ tàggoon ñu leen jox daje suba xëy na ak Babacar uh, parce que ñun moom lañuy dem tabaski ji xëy na. Babacar uh, dina fi teew. léegi nag man nuyu sama yaay ma sama yaay Meeso di nuy Mouhamed Diouf nuyu Astane ne DG Brahma Chéri Khadija Diallo nuyu samay bourchou Mame Diarra Penda Rokhaya ak Grand Fall nuyu ki nga xam ne El Hadj Malick Tandine depuis Thiès maa ngi koy nuyu nuy nuyu Abdou Gueye depuis les États-Unis di nuyu ki nga xam ne mooy Bébé Fa Euh, Tabara ak ki nga xam ne mooy Souvenir depuis la France euh, Djibi Bamba aussi yaa ngi si biir Babacar waaw nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm balu ñëpp ak di siyaar ñëpp xam nga di ñaan yàlla tabaski bii ñu jëm yàlla nañ ci dugg bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin xam nga di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm rek def ko ci àddina bi yëpp corona bi yàlla na dem ak jàmm parce tamit lu la waay mën a wax rek mooy corona bi moom yàlla na fi jóge bañ mën a dund comme ñu daan dundee xam nga parce que loolu la ñaan fi mu nekk ñun ñëpp mais daal loo ci mën a dégg Ndeye Coumba Fall bëgg képp koo xam ne nii bàyyi xel di ñu seetaan te di ñu safoo di ndamoo li ñuy def lépp lu ñu fiy def nag des fois bu ci njumte amee nañ ñu ko jéggal xam ne moo matul mais ku sañoon booy wax ak nit ñi di nga leen wax lu ñu mën a dégg dinga nga wax wax xam ne nii kilifa ga moo xam kilifa ak diine ga la wala goog aada ga ku mën a doon wala xale wala mag danañ ko mën a déglu kon Ndeye Coumba daal yàlla na réew mi yëpp am jàmm waaye yàlla na àddina bi am jàmm. amiin Babacar.